bisimilah barke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina wala Mouridaat bu seen santat sunu maam ci àllarbay takk naaw di naan fes mas mente naan may waaw altine ma takkaat alxames ma takk samedi ma takk dimanche ma takk waaw dimanche nag moom moom mooy dibeer ji waaw waaw gaaw di samedi gi foofu la ñuy gën a gaawee nag waaw waaw altine danay aalu waaw talaata duñ tal dara àllarba ñu ba fi lépp takk naaw ne fes alxames ñu ne mes àjjuma ñu añoo ak moom waaw waaw gaaw ñu gën a gaaw ak moom rek saam ko muy samedi bi ñu sarsarale waaw dibéer gi lépp di nga xam ne maama daan keneen dootul daan ko ko weeti daanu dañuy kennal maam tey dund maam te xam ne maam moo fi ne fii lu dul maam rek waaw ñu ko ndax lu maam rek maama la moom moo la sàkk bind la teg la fi di dox kon a cuuj ci maam Serafal ndax mooy borom cër bi de te mooy séddale te borom lépp moom la nag moo fi ne nag tàkk bamba fen gindi jaam ñi réer waaw leer bi moom la maam Serafal Fall waaw yàllaahu waaw ah, kooku kooku mooy abori jaadu léegi waaw ci turam yi la nag mais romb na lépp kooku romb na lépp